docteur Seydina u Seye maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen fay. docteur Seydina Oumar Seye sa xam-xam màcc ci wàllum uh, koom-koom uh, déjà ñu lay laaj sa xalaat naka nga gisee budget état wu Sénégal bi mu dégagé pour deux mille vingt quatre ñu évaluer ko ci sept mille milliards. waaw bon di budget bi ni ñu ko évaluer ci sept mille milliards bon ñëpp ñuy xool di ah ñun de bu fexee ba mobiliser ressources yooyu ci ni ñu ko tënkee ci at mii di ñëw njariñ la buy law teq ñëpp ñu koy wax ci croissance. maintenant tey jii boo defee constat entre deux mille douze à maintenant daanaka budget bi dafa triplé maintenant nag am na ñu ciy yooxu pour de ko def récupération politique naam doo leen ko xañ mais tey jii il faudra chaque fois voir ndax prouesse la da ngay def ce qu'on appelle une analyse ci valeur relative yi entre deux mille douze à maintenant bi fi Abdoulaye Wade bi fi Macky Sall nekkee en termes de pourcentage tout ce qui est là variation relative est-ce que c'est une obédiences ou bien orientations politiques, le constat qui est la il nous faudra mobiliser plus de 7 000 milliards. Donc, là, si vous regardez cette hausse en valeur absolue de plus de 500 milliards et quelques, mais yokk googu tey ni ko lal mooy tey jii dañoo jàpp ci natt xayma fii ak deux mille vingt quatre bu lépp li nga xamante ni mooy bàyyeekoo ci ay ressources. ci mm-hmm. pétrole ak gaz. Mm-hmm. bu fekkee paie am na. parce que budget bu xaalis boo xamante ni tey jii sept mille milliards yi mu ngi ci palais Macky Sall bu soxlaa rek ci génne. ay luy dugg la diggante bii wa diggante bi lii dina dugg dinañ ci def lii lii dina ñëwaat dinañ ci def lii wala loolu yëpp tey jii prévision la mais prévision boobu dañ koy natt ci loo xamante ne bu incertitude amul benn instabilité ñëw surtout nit ñi gën a ragal mooy situation yooyu ñu jëm ci deux mille vingt quatre si on arrive à gérer la quiétude et la paix sociale budget boobu ñu tabax noonu buñ ko dawalee dana jural Sénégal ay points de croissance daanaka yu jege douze pour cent te loolu mooy laaj bi ñu doon laaj nga xam te ni koy jooy dinañ am croissance mais daanaka néew di doole bi góorgóorlu bi du ko yëg ndax économie bi ni ñu ko tabaxewaan daanaka ñi nga xamante ni ñoom ñooy créer richesse li nga xamante ni moo waral aw teq yëpp mm-hmm. bu tubaab yi wala ñi nekk bitim réew jëlee seen yëfu yóbbu li ñuy dese ci dëkk bi li ñu moomal ñun sénégalais yi créer ko du man am njeexital boo xamante ni ku nekk da ciy yëg-yëg am yëg-yëg ci yokkute moo ta cette fois ci li nga xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp muy pétrole ak gaz bu recherche additionnelle yooyu continuer ak liñ fi nekkoon d'ailleurs loolu la ñu waa FMI doon dans euh, di dànkaafu li ngeen am ñu ngi continuer am seen confiance naam waaye boo leen fexee ba tey jii détournement corruption ak yenn gestion publique yi gën di efficace Sénégal dina romb fii loolu nag état bi joxe na ci ay ay ay ay ay ay gaz j'espère que nekkul ci wax rek wala lu ñu annoncé mais bu ñu ba jëmbal lépp lu nga xamante ni mooy yaxanal keesu état bi nga xamante ni tey jii dañ koy tabax ci luy jur xaalis maanaam xaalis buy liggéey xaalis bu boobaa dinañ dem ba les générations futures dinañ ci gëm euh, gis suñu bopp mooy ñu fexe favoriser dépense d' investissement yi au détriment dépense de fonctionnement parce que loolu la ministre bi annoncé mooy lépp li nga xamante ni mooy walo oto yi ñuy jënd lépp li nga xamante ne ay bâtiment intelligent ci yàq énergie moo xam énergie rek ci fànn yëpp ak tey tout ce qui ay ligne crédit yooyu yëpp yi nga xamante ne ay poste la yoo xamante ne état bi da ko doon gàddu te tey jii les usagers duñ ko utiliser avec parcimonie ku nekk ñu jox la li nga xamante ni moo yanu maanaa bu jeexee ngay génne sa poste foofu loolu la ñuy wax une optimisation des ressources wala budget de l'État. Mhm. buñ ko jëmbalee ak surtout paie bi taxaw sept mille milliards yi nga xamante ni njariñ la bu ñëwee boobaa dootuñu waxati croissance bi ko yëg ndax di leen ko mën a yëg parce day nekk richesse boo xamante ne day law fekk ñëpp. voilà euh, docteur Seydina Oumar Seye aussi ma laaj la ci benn euh, expression ñu koy wax liberté économique euh, Sénégal ñu classé ko ci benn rapport mu jël cent troisième place ci cent soixante seize pays euh, déjà lan mooy liberté économique. waaw comme ni ñu ko ni ah, liberté poli euh, économique ab notion la boo xamante ne li ñu naan politique yi ku nekk ni ñu koy définir rek wala ni ñu koy gisee. mais liñ ci mën a jàngal rek da xool place su Sénégal bi naam sori na soriwul mais dafa am yenn critères yoo xamante ni tey jii ay proxy la ay indicateur la ñuy jël ñu tabax dangoo xamante ne ay indicateur composite bu lii bu lii amee pays bi kat nii leen di classé mais liñ ci mën a jàngat mooy ñu ngi ci ndaje yi mais ndaje yooyu dafa am lu ko waral état bi fexe ba tey jii critères yooyu yëpp donte teewul kenn ñàkk waaye teewul kenn am mais day baax tey critères yooyu ñuy xoolee fii perception bi moo ci am solo parce que tey jii perception boobu tey jii su baaxee ba ñu gagné ay place yoo xamante ni yanoon na maanaa ci yenn standards yi day gën a capter tout ce l' investissement direct étranger ak industrie yi nga xamante ni day jur externalité positive yëpp yu dérivé autour des métiers de pétrole et du gaz rek daan mën a fexe loolu ba ci yii nga xamante ni moom moo xewoon fan yee nga xamante ni nit bi day ñëw defar après lépp su yàqo à cause d'une situation politique boo xamante ni tension bu délétère la day xaw a ndërmeel yooyu yëpp donc tey jii Sénégal kombaam fenn la mooy tey jii la maîtrise yi nga xamante ni tey moom mooy notre trajectoire wala les stratégies macroéconomiques yi ñu ko tënk ci budget bi doxal ko jëmbal ko beneen élément bi ci gën a am soro suñ ko anoon moom mooy la paix et la quiétude tout simplement sociale qui nous permettent tey ñu yokk ay place ci liberté économique donc loolu je pense bien que tey a place la boo xamante ni relativement on peut relativiser mais je pense bien Sénégal am na ay moyens de figurer en bonne place ci ce qu'on appelle la liberté économique. voilà euh, docteur ñu wax aussi ci feetum tabaski mu nekk période boo xam ni sénégalais yi dañuy dépenser xaalis bu bare bare euh, sur le plan économique ban analyse ngay def ci euh, feetum tabaski ak koom-koomu réew mi. waaw waaw feet bi en fait day yëngal économie xam nga ñu bari bu ne dépense duñ koy jàpp yàq. or dépense li nga xamante ni moom la économie yi tuddee dépense mooy la consommation. toute dépense rek quelle qu'elle soit c'est de la consommation en tant que telle bu dee ay entreprise investissement nga koy tuddee bu dee ménage moom mooy xam ni ñuy jënd mais lu toll ni feetu tabaski da ngay gis surtout ménage yi dañuy désépargner désépargner mooy li ñu dencoon kii jënd yëre bu bees kii dàll bu bees kii ay o kii au moins mais li muy yëngal mooy lan tissu économie bépp la yëngal surtout au niveau du secteur informel à travers artisans yi à travers sectel bi à travers les envois de fonds y a des flux donc contrairement nga xamante ni ñetti fan yee ñu dundoon ci ci ci début weer yi nga xamante ni pratiquement l'économie était à l'arrêt en panne yii dina permettre incidence manque à gagner boobu bu fekkee tey ji économie bi yëngal nañ lépp jaar yoon dinañ permettre ñu résorber gap bee mais liñ ciy gagné mooy nga xamante ni gain yooyu pour mu bañ a nekk ab gain à somme nulle dañuy fexe de telle sorte que tey jii kat bu feet bi jàllee rek duñ ko prolonger nga xamante ni l'économie day delluwaat ñëpp ñu toog. comme xam ne y a une dimension culturelle après fête dinañ am une semaine boo xam ne ni pratiquement de manière officieuse bon après fête jeexagul ñëpp dañ koy prolonger et boobaa day wàññi la productivité par tête c'est-à-dire que tey li ñu xawoon a gagné fee. Mhm. danañ ko xaw a pertaat daanaka ci benn semaine boo xamante ni dañuy toogaat ñëpp taxaw di xaar l'autre semaine lay commencé waat. Mhm. lool tamit war nañ ci góorgóorlu. su ñu defee feet nga xamante ni àjjuma samedi dimanche lundi ñëpp jógaat économie bi kon di demaat mais pas ñu prolongé ko ba beneen lundi ba tey jii li nga gagné woon ci diggante boobu li nga yëngal ci économie bi en terme de la consommation des ménages. Hmm. mooy dépenses yi ñuy effectué laal secteur yëpp. bouger yi transport fépp di dem buñ ko toogaatee une semaine daanaka liñ ci gagné woon presque di nga pertaat xaaj bi. waaw ouais. Euh, docteur dernière question rek euh, lan moo euh, lan la war a def exactement pour am une bonne santé financière et économique si sa jàngat. waaw bon ñun ci li ñu jàpp ne loolu borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci fii Sénégal mooy lan borom xam-xam yi ak bànqaas yi saytu mooy tout ce qui est la gestion des deniers publics tout ce qui est la gestion avec parcimonie des ressources publiques mooy les de contrôle li def seen rôle mais surtout ñu am ay modèle d'alerte précoce ni ko Khadim Bamba Diagne di waxee c'est-à-dire faire de telle sorte que ñi nga xamante ni tey jii dañuy détourner wala détournement d'objectif wala de fond bu ci mënti ñuy fexe am corps de contrôle yoo xam ne ni ku nar a def loolu ñu jubbanti tegaat la ci raay bi li ñu mobiliser woon pour mu dem ci ay dépenses d'investissement infrastructure wala jëmbal tout ce qui est l'absorption de main d'œuvre fexe di fa dem mais bàyyi ba après détournement am wala leneen ñu toppaat yi def sanction amul njëriñ mais maître mot bi daal pour am une bonne santé financière par rapport à la gestion c'est par rapport au management étatique des autorités en termes d'orientation et de stratégie je pense bien ñu ngi ci loolu lu baax la jëmbal bi rek moom moo ci des ak suivi évaluation fexe contrôle bu am rigueur pour loolu tey ji mën a jur taux de croissance bee ñuy wax à douze parce que loolu moom bu ñëwee dinañ am benn croissance pro pauvre dana egg ci panier ménagère bi incha allah. voilà merci beaucoup Seydina Oumar Seye ñu ngi lay remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. merci c'est moi merci. voilà may fàttali ni docteur Seydina Oumar Seye sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom-koom merci beaucoup. jërëjëf.